aywa sama yaram yëpp jotulay metti billaahi man kay nee naa de war na maa dem sama docteur ba sax ah des fois de toog ba yàgg dem xool sa yaram da ciy baax da ciy baax kay da ciy baax an sa yaay sama yaay dafa génn génn ah fan la dem ah bi muy dem waxuma dara de ah si kaw de laa jóge néegi yëpp ubbi naa ko nag heure reer jot na pour ñu wàcc reer mais gisuma tam Moustapha tam gisuma ko fa moom tam dafa génn Moustapha génnul de Moustapha mi ci ginnaaw ada nek nekk ci bërëb ba. wa dafa nek ci bërëb ba. bintu mom neena bu ko kenn xaar ah kon nak bu dee la xaaral tuuti ndax ak yow rek mun ñoo reer bàyyi ñi ci des nal leen xaar bu ñëwé nga dogo yek du noonu. wa baax na. man sama yaay dafa am benn numéro masqué bu koy wo numéro masqué. wa ah jatu yow leer la numéro bi numéro masqué la. yaay man dafa mom deug la day lànk du ko jël hmm. ma ni ko jël ko hmm. bi mu ko jëlee nag hmm. ku tuddu balla mo koy wo balla balla kay nga xam baal la salaamaaleykum ya bu neen ça va ça alhamdulilah. Fanta laa doon seet. waaw. Hmm. waaw man ak moom ñoo bokkoon classe bi ñuy nekk xale. Hmm. waaw. dama fi xawoon géej nag. xarit et puis man ak moom dañoo gëjoon gisante toog nañ yàgg gisante wuñ waaw loolu moo tax ana moom mi ngi fi baax na yetu loolu yëpp amul importance li ma lay wax mooy kàddu yu ma la mës a wax maama tënk kook yow man ak yow ak yàlla duma ko déggaat feneen lii nag na ko yemele comme say karabu doq baat bii bu ma déggati nga génne ko sa gémmiñ gas ko ba mu xóot nga suul ko muy tur wii te sa yaay buy waxati téléphone jógal nga dem sa yoon du dëgg ndax li ma lay wax waxi kilifa la te nag xale am na noo xam ne bu ko ni defee mën naa yàq éducation am baa mu yàq jikkoon wala déet ah waaw baax na yow moom xam nga ni yow yaay sama yaay. Mhm. loo ma mos wax rek ne rek dama koy denc. dëgg la incha allah rabbi ko gas ba mu xóot suuf. waaw bàyyi ko nag dégg nga yàlla baax na. naka mu. bien naka mu. ça nit bett nga ma de. maa may gis. ah <laughs> man nag samay affaire nii la man su sama dara duma ko préparé dama nit naa ñëw rek xam nga waxtaan ak yow kon bi ñu tasee laa dégg waaw waxoon naa naa fi ñëw moo tax tey man naa ko def rek benn yoon. bett nga ma daal. waaw mais gis nga. <laughs> naka mu nag. maa ngi nii rek ça va. Ah, alhamdulilah. Mm-hmm. bon xam naa nag man duma yàgg quoi. Mm-hmm. Euh, xam nga la dernière fois bi ñu tasee ba mën na laa fi ñëw di mhm. doon samay tànk tey nag mooy ñoo bëggoon ñu waxtaan tuuti rek man ak yow bi ñu xamantee du tey ñoo yàgg bokk benn baax bu ñuy toog école primaire te am na ci loo xamante ni dafa amoon sama diggante ak yow mu di bëggee mhm. te loolu yàgg na du tey cofeel googu mi ngi fi ba tey ma ne woon nag naa ñëw feddali kooku cofeel ñu recommencé waat lépp loo xam ne amoon na sama diggante ak yow yokk ko bañ ko wàññi. bon man nag bëggoon naa nga wax ma lan nga ci xam walla boog da am koy génn. xam nga man moom dem ma dikku ma may sama wetu yaay toog. <laughs> loolu xam naa ko te bokk na li tax ma gën la jàpp su ma sañoon daal comme ni nga koy waxee rek. di delloo buum ca baax na loolu daal nga am comme réponse ah baax na man moom bés bu rafet rek lay xaar ah yàlla ci yàlla yóbbu jàmm amiin waaye xam naa ni keneen koo mënte amit ku dul man bon def naa yàq lay doon quoi mais nag yàlla baax na mais à part ça ça va doon waaw ça va Irina Franklin. Merci beaucoup. Tu restes toujours bonne. ah soxna Marie gis naa teraanga yi bëri na moom macha allah. ah bëri na trop. bàjjan yaa ma. xanaa xamoo ne bàjjanay baay. yow yaa ko moom lii ñu la defal lépp dañ koo xeeb sax. ah bëri na daal xeeb nañ ko de wax dëgg yàlla Diop. jërëjëf. ana Fatou Samb nag moom. Fassam nag moom dafa génnoon mm-hmm. ndax euh, càmminam loolu nekk tugal euh, moo ko waxoon ay soxla yoo xam ne daf ko war a doxal mm-hmm. ca la dem nag hmm. waaw ca la dem waaw damaa naroon ñëw sa kër jaale la ma bañ ma ñëw foofu mu tiis loolu après laa ne xaaral ma woo la kan jox sama numéro loolu yëpp amul solo comme yàlla def na ni ma ñibbi si Sénégal ma ne xaaral ma woo la rek jaale la mais bëgg naa xam tamit kan jox sama numéro kula jage won la nit kula jage won gis na man mag du fo waxi kasaw kasaw yu ñak fa di man newuma ci. Zal Zal momu jox sa numéro. Zal. Zal waaw. Hmm. lii yëpp de bay ma mat a ko waral. bay ma ci la ah dama xamne kat bay ma amna am na droit doon ay jabaru magam tay jii ni bu len jëloon kon dina bax bàjjen yaa mi mbaa yow xool nga bu baax li ngay wax ah. dëgg la de kay bay ma ma de war naa doon ay jabaru magam waaye dafa fekk ne moom dafa takk jabaru tubaab te xam nga ne tubaab du wujje te nag ñoom dañoo sëy kayit gi nga xam ne mooy monogamie mm-hmm. ak euh, communauté de biens te loolu moom mënoo ko def di takk kenn sax ba rawatina ñaar la ma dem jabaru tubaab moom loolu daal suñu yoon nekku si ah bul ne suñu yoon nekku ci ndax nag mbir mi bu fekkoon benn jabar sax ngay wax waaye ñaar ah ah ñoom dañuy bañ benn ba ñaar di ñëw kon nag mbir mi xoolaatoo ko sëb la yéen ko mën na nga ca biir hmm. te nag lu nu mënta def duñ ko mën a def yaa ngi dégg yow nag loolu nga bëgg waaye nag dafa am lu fi ne <laughs> li fi nekk moo ko gàllankoor li fi ne gàllankooru dara waaye waa Zal fan la féete jamono ji ñu nekk ah Zal yàlla def na ni dafa jaaroon côté Brésil ba dugg Mexique diggante bi mu bëgg dugg Amérique yàlla def yàlla moom bakkana entré

gis nga man actuellement dama am problème bu tang jëri jëri jëri sama kaw bu mel na sama nijaay mo febar te kenn xamul lan moko dal mais d'après mom ngelaw setané moko dug hm. gis nga loolu mom mam yag kessé mo ci am safar mam yag men mam yag men kessé mo ci am safar mais lolu kay toogaay amatul dañuy dem léegi kër nga jëli ko comme ça ma ok. Alhamdulillah, Selam. Yang sejauh. Yang sejauh. Alhamdulillah. Nah, yang sejauh. Alhamdulillah. Bisa bayar bisnya lagi. Mana yang liggéey rek papa. Ba du dara lu ñaaw rek. Déedéet déedéet. Ah papa man nag dëgg yàlla. Dara lu ñaaw du nekk sama diggante ak sa waa kër. Wax dëgg yàlla. Ana waa kër gi allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais moom daf ma doon xamal ni daf lay woo temps yëpp du la waaw Pape xam man su ma nekkee ci liggéey bi sama téléphone yëpp dama koy fay moo tax xam naa bu ma wooyee du ma jot. ah d' accord ah, ah, ah. c' est vrai léegi nga mu bëgg da ñëw kër gi soo amee jot ci fenn jaar fa comme ça ngeen waxtaan. waaw oh, baax na incha kon ci guddi gi naa fa ñëw. baax na incha allah dinaa la baax na jërëjëf. merci beaucoup merci sëñ Diop Diop Diop Diop Diop Diop Diop Diop Diop na ngeen def Diop alhamdulilah Diop na ngeen def ak coono yi barikàlla Diop alhamdulilah toogal toogal toogal man day damaa ñëw ci grand place fekk ma fi kenn ma far toog rek dëgg la dëgg na ngeen def alhamdulilah la barikàlla gis nañu sa teraanga yi nga yónnee ci jàkka ji mhm. yal na la ko yàlla fay mhm. jullit noonu lay def mhm. jërëjëf loolu de du man la moom mu yónni woon pour ma defe ko ni ko bàyyam daan defe pour indi teraanga yooyu si jàkka yi ak si néew di doole yi Moustapha de bàyyam yàdd ma yar na ko ci dëgg mm-hmm. yar na ko ci jubal yar na ko ci diine ñun ba tey lekku te jotté ak fi kenn yaay bu amé problème doo ñu wax rek ñu xam lan la. xam hmm, naa ni dé numéro bobu la wowon loolu dal rek mo la ko tek mo tax nga feebar ni man dama dul nit waruma toog ba mu yàgg sama yaram na xari ma sentir ci tayal wala dara. loolu de dëgg bu wér la noonu rek la mën a mel parce que noonu la ko bàyyam yare te sax Diop kii di soxna Marème dama ko bëggoon a jël def ko soxna jàmm ci yàlla soxna Marème de wax na ma loolu newoon na ma ñëwoon nga fa ñëwoon naa fa waaye xam naa ne de du ma mus a baal li ma fa àndoon nag monsieur le maire doon sulli bàmmeelu Yann bi yaay su fekkee daa am lu naqari partage ko ak ñun ñu xam moo gën yow kat yaay melu woon nii ñëw bu fekk la nga sëngéem nii nangu wax leen démb rey lekkul loo xewle yaay ñun dañoo jaaxle te xaw ma nag kan moo la woo ci numéro masque bi wante xanaa newoo ma lii yëpp moo la ko teg de man daal damaa bëgg a jommi walla lan yéen xale yi ndaw yéen daal yéen toog fii fi mu toll nii bëgg maa dajj dajee ku ne bu nii nii ki ci man aw seen jot bu fekkee ne nag nettali seen géntu nday moo leen dese man maa ngi dem ba fi man. Ah, ah. kii mu sotti. nga muy nëbbu de man de soo waxee ñu dama dama dooj xaamu noppi xeeñ neex na moo tax ma nopp bànneexu bànneexu wala da nga xam fi ma jëm moo tax nga ñëw lenn rek laa nga ñaan xel bu ma topp soxlawul ma lay topp ndax fépp foo dem jiitu naa la fa léegi loolu nga jublu si la ginnaaw sa ndey bi la jur benn jigéen du la gën a bëgg te di la aar ni man te yow sax xanaa xam nga damaa fiir fiir yow sa bopp sax xam nga ne xale bu jigéen bi daa am cofeel ci man te ay waajuram dañ maa bëgg kenn moo la fa bëgg bu fekkee dafa am loo xam si ñoom est-ce que doo wax toog di wax ak a waxtaan entre waa baax na ci kanam ay mare sam Samb maa ngi sant yàlla bu baax waa Samb lan ni dara ja Marème sama xol mo neexul rek Adja ya, Marème par sàmp man mii di Adja Marie nëbb sa bopp ndax dañ ne Lat Joor looy bokk ak tubaab bu mu lay yàgg teew fii bi nga fiy wàcc samay loxo nga teew loo fi xam maa la ko xamal maa la dalal te xam naa bu baax sa jikko te lépp loo xam ne nekk na ci yow soo ma ko waxul kan nga koy wax ndax maa ak bokk kër gi te ki ñu fi boole woon indi yàlla yóbbu na ko kon nag man lépp lu la war a naqari war naa koo xam man nit lu ma naqari war nga koo xam. bon merci beaucoup Moustapha kontaan na soo gisee may ñëw suma kër parce que suma doom te ñi ngay doon doon suma doom suma xarit nga man maa la bëggal suma soo gisee may bëgg ngay teew fii ci suma biir kër papa suma wóllare la woon. ak sama xarit boo xam ne daf ma mës a yéene donc suñu boroom jëlee bàyyi la fi yow man du ma mën def lu dul di bàyyi xel di la nemmeeku di la bëgg aussi ngay dugg suma biir kër di jaxasoo suma njaboot parce que léegi yow ak sunu njaboot yëpp benn ngeen si ñun donc di fi teew moom loolu daf may gënal su ma sañoon dootoo fi nga jënd. incha ah, yàlla maa leen gën kontaan di leen sant bu baax. di leen gërëm doon mel rek loolu yaay di ñaaw ji kontaan naa mhm. nga bokk loolu moo yëpp dëgg la ñu damaa toog am ku woo téléphone ñu mhm. ma daf maa soxla dafa bëggoon waxtaan bi ñu waxtaanee man ak moom mu xamal ma ni Zal moo ko jox sama numéro. Zal. Mhm. ma laaj ko ani Zal. Mhm. fan la Zal féetewee jamono yi ñu toll. Mhm. munuma Zal dafa duggoon Portugal. jaar Brésil. bëgg a dugg Amérique waaye dafa mujjee ñàkk ba kenn. sa papa moom suñu wolale woon boo xam ne ndeysaan yal na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana suñu borom jégal ko da nga desee aussi ñu barke bi soo amee bàyyi bu mel ni yaat ma moom day bu mu toll bi mu am da ngay fexe ba fi mu tegoon tànkam nga teg fa sa bos xam nga ko waaye gën a la góorgóorlu du dëgg wante nag <laughs> muy naan la ah xam naa ni war ngeen a am na ngeen war a waxtaanee. chéri baik kali dem si biir bàyyi xale yi ñu waxtaan. ñu dem si biir. Moustapha. fii sa kër la kan kan dem si biir yow kontaan naa de. maa la gën a kontaan. xamoon sa papa moo fi indi nag. eh sa papa moo la fi indi woon. moom sa papa moo fi indi. yoo xam nga ne moom sama papa indi wu dafa mën. yaakaar ne yow la nag loo xam ne. mais ça fait plaisir nag. ah mais loolu la. yàlla baax na. damaa xaaral ma jóg déplacé yi. naa yokkoon ay pastam da nga gëj a dégganteeg sax yaa ma ne mën naa dégg sax kon moom yëgul ni sëñ bi génn na àdduna. ñaanew ko ndox ah demit na muñal rek metti na waaye dangay muñ lu metti ci jullit la ko yàllay te ñàkk ñàkk nga sëñ yaat ñëw ñàkkati zaal ah li naan ñett xamuñu waaye ñaar xam nañ massa metti na nag yàlla mooy joxe dogal muñal jógal nga summeeku sangu féexal sa xol julli ñaar ràq tàllal sunu borom say loxo yàlla loo ko ñaan jox la ko jógal nasa nasa